lu ay tegginam di ka di gën a kawe dayoom di gën a dolliku ay mbiram di yëkkatiku seenub lim toll na ci ñeenti téeméer jàpp juróomi téeméeri maam jaara yoo xam ne ni ña nga yewwoo ca poroxaan daara ji le Serigne Moustapha Bassirou Mbacké sosoon ko ngir rek ñu daal di fay jàngal ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee ay turandooy maam jaara boobaak léegi nag Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi nga xam ne mooy xalif général des mourides waaye tam jiite njabootu Serigne Bassirou Mbacké mi ngi bay waaram ci li nga xam ne moom moo di daara joojulee ngir bañ rek liggéey bi daal di sooxee at mu jot nag bu ñu jàngee lu toll ci juróom-ñeenti weer ñoom gone yooyu de dañuy daal dellu ci seen ay kër dem ci seen i mbokk saafanteeg ñoom laataa ñu delluwaat fi nga xam ne moom moo di ca poroxaan daara joojulee laataa vacances yi di jeex maanaam yéen wajuru gone yi ne fii ak ñi ñuy dégg ak fu ñu mën a déggee moo xam ñu ci biti la moo xam ñu ci biir réew mi te mën nuy dégg moo xam ci biti la te mën nuy dégg ñu ngi leen di ñaan ngeen gën noo gën a jàppale ci gone yi ci liggéey bi ñuy def ci ñoom ñaari weeri vacances bariwul soxna si dana ci sori ñaari weeri vacances yi dimbali leen ñu ci ci yar bi ci nafar liñ jàngoon bala ñu dégg si sëriñ Isaaxa Basiru Mbàkke mi nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa teg liggéeyub daaray maam jaara ji foofu la ca poroxaan nag mi ngi yëkkati ay kàddu yu ñaax ñëwale ci soxna yooyu lee di ay dongay maam jaara njariñal Sénégal gi da ngeen xam ne da ngeen xam ne Sénégal gi li muy néew néew ak li muy bari bari ndax buñ ko seetee ci yéen man nañ ne bari nañ waaye yéenay synthèse bi delloowaat Euh, Sénégal gépp société sénégalaise ci sunu borom ci la nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci société ndax loolu lañ bëgg ci yéen ngeen tasaare ko tasaare ko ci seenu ëllëg fu ngeen mën ne tasaare ko ci seenu melo tasaare ko ñi nga xam ne ëllëg yàlla dana def ñu man di jàngale leneen ak leneen ginnaaw loolu soxna maam Awa Dem mi nga xam ne moom moo jiite lépp lu jëm ci wàllum njàngale ma ak yar gi foofu la ca biir daara ja ma nga yëkkati ay kàddu di fësal ni daal ren ji li nga xam ne moom la ñu am ci ay résultat bokk na ci xelum dal mi nga xam ne nii am nañ ko ci liggéey ba waaye itam parrainage yi nga xam ne nii jamono ji yëngatu nañ ci loolu ba tax donga yi mën a jàng ci anam mu gën a mucc ayib ndax nga xam ne moom la parrainage bi tàmbali ak sa yitte ci daara ji ak sa taxawaay ak ni ngay demee ci biir jullit ñi di wax ak ñoom di leen wan mooy liggéey daara yëg nañ yokkute goo xam ne faaw dañ koy wax lii di cérémonie boo xam ne nii baaxoo nañu koo def at mu nekk maam jaara yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca poroxaan dem ci seen ay kër ngir rek li nga xam ne moom mooy ay teggin yéen jàngaloon ca daara ja juróom ñetti weer yi nga xam ne nii fas yéene nañ koo tàggatoo ak seen ay maître ñu bañ a fàtte benn yoon leson boo xam ne nii joxoon nañ leen ko fu waaye itam ñu gën a taqoo ak yar ba mu ñu demee li nga xam ne moom la ñu def ci ñoom ñu mën koo def ci kër yi nga xam ne fa la ñu bàyyee koo woon